nag waxin bi moo am jafe-jafe. fayu loole nag lañ mën a jàppee li njiitalu Pastef daal di teg ci ndoddu taskatu xabaar yi loole nag amu fa woon place am responsable web bu groupe Seneweb loolu la daal di jàpp. da nga koy mettre entre guillemets même bu nekkee am na ñu la doon xeex am na ñu taxaw taxawaay dëgg aussi euh, pas la mais taxaw taxawaay dëgg loolu tam boo ko gàggam leer yi da ngay xam ne tamit ak sénégalais fal bi la fal yow nga fi nekkal ñëpp daf la war a yóbbee si ngay gën a boole waaye bañ am taxawaay boo xam ne day mel ni ñii. am nga problème ak ñoom mel ni ku koy jéem a régler ci beneen anam ba pare di si laa xaala ñeneen bu ñu sukkandikoo nag ci chef de service euh, ca RFM Mouhamed Ali Mouba jàpp na ni euh, populisme rek moo ko waral ndaxte li ñu digoon askan wi defuñu ko. média yi bokk na ci euh, populiste li ñuy xarab parce que jàpp nañ ni média yi mooy empêcher le leader populiste dem di dem directement di waxtaan ak le peuple donc day dagg cordon boobu. le journaliste médiateur la. day nekk au du nangu loo xamante ni du dëkk yooye nag mën a jur jafe-jafe yu bari ci ñi ciy yëngu. pendant euh, sa traversée. Euh, bi mbir yi di métti dafa amoon xaajaloo ci presse bi xaajaloo boobu taxoon ba ñuy xarab yenn journalistes yi di tagg ñeneen ñi ñi faral Ousmane Sonko ak ñi ko faralul waaye jàpp naa ni loolu mënoon nañ koo comprendre ci jamono bi nga xamee ni nekkoon nañ opposition waaye fi mu ni coppite dafa am. Sonko était dans l'opposition. teewul benn yoon nag ñi ci yëngatu jàpp ni waxtaan. gu amul nëpp nëppal mooy juboole exécutif bi ak quatrième pouvoir bi. je pense qu'il faudra que les hommes politiques travaillent davantage à ressouder la nation. gisuma benn gouvernement boo xam ne da ngay taxaw bëgg a jàkkaarloog ñi nga xam ne ñoom ñoo les chefs d'entreprise li ma gis mooy benn gouvernement boo xam ne da ngay taxaw ànd ak les chefs d'entreprise di ngeen doon parce que ñoom dañoo wutu état si loo xam ne ni amaana moom la waroon. balaa loolee di am nag taskatu xabaar yi nag fi ñu taxawoon jóge wuñ fa ne menace bi